ñoom ñooy xëccoo. allo oui bonsoir. bonsoir monsieur. bonsoir Sophia vous allez bien. Va? je vais très bien et vous. alhamdulilah. maa ngi allo. oui on vous écoute. oui ñoo ngi leen di ziar bu baax di rafetlu émission bi. ñu delloo ziar mm, di nuyu père. ak euh, père aussi ak ñëpp ñu nekk ci plateau bi. di rafetlu aussi euh, li suñu maman wax. Mm-hmm. Euh, yaa Seyda. waaw Absa. Euh, dama doon bi may déglu émission bi dafa am benn euh, question daal boo nga xam ni. Hmm. dama seetlu ni duñu koy faral di étudier souvent. Mhm. mooy dañuy xeex souvent euh, polygamie et tout ça. Mhm. professeur wax na lu am solo neen na c'est de l'égoïsme. man je trouve mooy mooy mooy jigéen ñi jaay seen bopp nekk ci ci mbedd mi. waaw. waaw ñooñu du ma gis sur souvent euh, féminin ñiy tuddee seen bopp féministe man damay wax ni féministe la ah, góor la mais féministe la mais sama xeex fi ma koy accentuer mooy jigéen ñi jaay seen bopp nekk ci mbedd bi. Uh-huh. beneen da ngay gis jigéen takkoo ko mais nga mën a ak moom li ngay seq ak sa soxna teg. waaw oh, dafa mel ni dañ ko perdre ah moom tamit ak ñu ci jégalu bu baax a baax euh, ñu jël keneen. 88 628 89 90 salaamaaleykum. allo. allo. allo. allo. man maa duggaat waaw. waaw waaw waaw. waaw ñu ngi lay déglu ñu ngi lay teewlu sëñ bi. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw man maa duggaat noonu sànq. Mm-hmm. d'accord. waaw te affaire lekk ci ameñ bi ma doon wax sànq rek. Mm-hmm. waaw. ñun côté boobu dañ ci xaw a complexe yaakaar nañ boo ko sax di lekk te jëfoo ko sax bari na nag ñu koy jafe Sénégal. Mm-hmm. yaakaar nga ni bokkoo yooyu ñun complexe boobu lañu war a génnee buñ bëggee wax ci suñu mag ñi liñ fi bàyyeeg yooyu noonu. doguma la sëñ bi. waaw. lekkee càmmoñ. waaw. doom ju góor du ko defandoog baayam. Mm-hmm. ah doom ju góor du ak baayam. di lekkee càmmoñ léegi ab safaanam. Mm-hmm. waaw ak yeneen. bari na kay moom macha allah waxtaan neex na lool. sëriñ si ñu ngi may dégg.

J'interviens pour monsieur, le monsieur, le vieux monsieur avec le, le sabador blanc. Oui, il vous écoute. Le sabador blanc. Oui, c'est un grand boubou blanc. Oui, oui, oui. Je, suis un grand boubou, moi. waaw parce que li nga li nga wax. waaw lépp dëgg la. ah man. Euh, euh, taalibe sëñ Saliou est-ce que borom ndokk. waaw yow li nga wax yëpp dëgg la. la ilaha illallah. Euh, Sénégal sénégalais yi dañuy dañuy dañuy bëgg a def roykaay si nasaraan. waaw nasaraan du roykaay. ay bon waa di ay ay waaw nasaraan roykaay parce que. dama ne euh, lekk ci lekk ci lal yi ñoo koy def. Ah, ñun ñun duñ ko def mais da ngay bàyyi jàmbur bàyyi sama nit la na bàyyi jàmbur. waaw ñun duñ ko def. kooku kooku sénégalais du ko def nasaraan yi ñoo koy def mais comme que sénégalais dañu bëgg a roy toujours si nasaraan yi. yow yaay naa fekk kii nu may déglu ko kii non ban waa daal man daal. allo. nan lay nan lay kii mu dugg mu daal koy attaqué. allo c'est infernal en tout cas. non. yow tamit. asalaamaaleykum. 88 628 89 90 allo. da ngaa bañ ma tudd la. salaamaaleykum papa doo ñu bàyyi ñu jël téléspectateur yi waa si waa si nañ commencé si yow waa nañ commencé yow dama ko ragal. waaw nañ commencé si yow ngir yàlla faal. ayca salaamaaleykum. allo allo allo oui bonsoir. oui salaamaaleykum. baax na. alo sëñ bi ñu lay déglu. na ngeen def. ñu sant bu baax a baax. ndax suma moomay fan rek ñu ñu jooyi. salaamaaleykum yéen ñëpp nuyu naa leen. yow fay nañ la bu baax a baax sang bi. ku nekk ci tur santam macha allah. yow yaa seedaan lim la woon tey bu baax Père Will kii yow lay waxal. man voilà seen émission neex na. aleykum salaam dimbali ma ngir yàlla ma wax ak allo. merci beaucoup sëñ bi kontaan nañu bu baax a baax. ma ne seen émission neex na. jërëjëf jërëjëf sëñ bi. te yàgg naa leen suivre. ndeysaan. macha allah. Eh? fooy wootee allo. fooy woote man maa ngi wootee Vélingara. ah Vélingara Vélingara. Vélingara waaw. Ah, naka waa Vélingara. macha allah ñëpp a ngi ci jàmm. waa kii lan nga wax ci maanaam ñi nga xam ne doonoo taxaw tëj. tëj bañ euh. maanaam say wujje. ok léegi li ma am pour wax. Hmm. dama dam dam dam leen di xaw a yaatalal rek la situation bés boo leen amee genre waxtaan yu mel nii. waaw. dam leen di ñaan rek vous faites un tour autour dans le Sénégal. waaw surtout allo. on a perdu Sophie ñëwaat ci bi tuuti papa daal di bi. dinañ leen jël tout à l'heure a dugg. waaw dëgg la dañ lay jëlaat léegi on va faire vite. surtout waa États-Unis dañuy dañuy gaaw Mbaye Ndiaye lay déglu. Oh, bon bon euh, di pa di di partager oh. li téléspectateurs yi partager rek. <laughs> heureusement que yenn kàddu yu fiy jub. Hmm. sénégalais yi mën nañu tànn segg. te wane nanu ko. li mu bëggoon wax mooy. Euh, ni Aminata Paye amee problème benn góoru ja benn góoru jabar di wax moromam takkal ñaareel. man mm. noonu laa amee problème ci ka nga xamante ne nii peut-être duggagul ci néegu sëy mm. di ci wax wala ko yor benn jabar di wax ci polygamie parce que tamit wax nañ ko fi waxaat ko fi. mooy la mu saf kaka màcc rek ka ko xam. Ah, am na lu nga xam ni du xam am na lu nga xam ni du xam-xam. du xam-xam de expérience la. dëgg il faut nga dund yenn yi pour mën a wax wax wax wax nenn. munoo fekkee munoo munoo munoo fekkee ab accident. munoo munoo fekk munoo. munoo ñàkk fekkee am accident ba pare di ko nettali non euh, bàyyi ma terminer rek. sànq ba léegi dañuy waxtaan rek Safi sànq ba léegi côté bii. dañoo moome nan nu bàyyi ñun itam ñu déroulé quoi. ngeen moome voilà voilà ñu déroulé. mais li may wax mooy. munoo accident mënta am accident mënta am fekkee woo di nettali ni mu demee. mënta ne atta bi ñoo ko loolu xeetu xeetu lu may bañ a la. mais nanu nanu bàyyi xel bu baax a baax que naam du xam-xam mais expérience xam li ngay wax dafa am solo nañ ci bàyyi xel beneen bi mooy Seyda dafa wax lu am solo. muy mm-hmm. li ñu xam ñun suñu société. parce que tamit nag am attention nekkuñu di dund ci société française wala société américaine Sénégal la ñu nekk. ñu am mm-hmm. suñu société mu am ni mu bindoo mu am nu nu nu nun nu mooñaale mu am boobu ba léegi bu ñu juddoo ba léegi. Mm. ni ñu nekk di dundee. Mm. loolu nag nañ ma ni ma ko yàgg waxee et je du xeetu féministes yu bees yi ñoo ko mën a changer <laughs> mënta ne. d'accord xam nga tam mënta ne. Mhm. mooy ki ki ngay taxaw naan ko euh, Seyda mi ngi ko bëggoon wax sànq. mais mhm. yeggaliwul. ki ngay naan sama sama sama borom kër du ma ko defal lii du ma ko mhm. defal lii mun a mun a yàcc yàccaaral day mel ni day day mel ni loolu ah, day loolu du ma ko defal lii parce que ndeyam gënul sama ndey wala moom gënuma non c'est pas cette histoire société Sénégal la ñu nekk li ñu xam mooy tey as ndaw bu demee sëy ci biir kër day toppatoo borom këram te maa ngi ciy sant yàlla ci maa ngi ci sant yàlla ci ñi jigéenu sénégalais yi di sëyee mhm. xola mbégte la ci ñoom sa attention mbégte la sa fierté pour ñoom sa borom kër wàcc nga toppatoo ko ba xola bu sonnee nga waxtaan ko naxtaan ko loolu fierté la pour sénégalais loolu moom ku ci ku ci ku koy ku koy ku koy contesté di nga ci wét muy féministe sax ñëpp ci yam <laughs> benn point ñaareelu point bi mooy il faut que ñuy bañ a di duñu maanaam ñuy dundaloo li nga xam te ne nii. Hmm. sunu société tàmmuñu ko wala. xamuñu ko Sénégal dafa am nu mu bindoo. dëgg la ñi ñi lay naan ay. du def lii jigéen ñi bu ñu def nii ak ñuy xola muy féministe yooyu tey ñoom laay waxal boo toppee seen juróom-ñaari maam seen kër ya ni ko père waxoon daa xumboon ay ñeenti soxna lan doon am teg ci juróom. barka Borom Tuubaa waaw kon jamono moo yàqu. il faut que itam ñuy définir ay lan mooy. Euh, euh, féministe lan mooy nangam lan mooy nangam parce que tamit c'est trop facile nga toog di naan jigéen bu def lii wala lii man du ma ko def loolu du exemple. ci ci nekkul exemple bu baax bu ñu war a mën a teg. jigéen ñi nga xam te ni tey jii nii man am naa doom bu jigéen keneen am na doom bu jigéen. Uh-huh. tey jii nii am na noo bëgg mu mel. ci société bi boobu rombee ñu ne ah. Hmm. Safia Diatta sa doom ji day yar nañ ko de. Hmm. loolu ndam la. ay nga génn ñu ne sa doom ji nii la mel. wala moom nii lay waxee ci plateau télé. wala même boo ko gëmee boo ko gëmul man loolu lijjantewu ma ko waaye yenn wax yi dafa rafetul. ci penc mu mel ni Sénégal nga xam ne kilifa diine yi ñu ngi déglu. Mm-hmm. kilifa aada yi. nga xam te ni am na ñoo xam te ni dañoo gëm aada te aada ak Sénégal nag aada gu baax la. mooy penc mi ak société bi biir kër yi dafa am ni ñuy yabee jigéen. ci mu mm-hmm. ci muy sëy. Mm-hmm. bu ñëwaatee nag très rapidement ma daanal foofu wàllu polygamie. débat bi jarul muy gudd. yaa euh, da koy wax saa su ne. bu dee mënoo dugg yow ku jigéen ki maa ngi woon ci góor ñi sànq ci jigéen ñi laay jow bu dee mënoo dugg ci ak wujje hmm. ngalla ngalla jéemal ñaan yàlla boog nekk aawo te am borom kër bi nga xam te ni nii monogamie la signé te fas yéenewul ci àdduna hmm. amaat beneen soxla hmm. ñaana loolu waaye bu dee nag da dugg ci néegu sëy wu nga xam te da ngay wujje nag ah dañoo am ay réalité signé polygamie ba pare ah dañoo am ay réalité mooy fexel ba góorgóorlu bu baax a baax am na ku ko fi wax sànq ci téléphone bi lan mooy aaw luy ñaareel luy ñetteel luy ñeenteel am na mag bu doon wax ne moo Mohamed mbay jigéen bu nekk même nekkal ñeenteel yaay sa aaw bopp. Hmm. ndax kat sa borom kër bu moomee ci yow foofu booba bu dee ñeenteel nga aaw du fa nekk ñaareel du fa nekk ñetteel du fa nekk waneel say preuve nanga nga mëne sëyal mel ni yow yaay aaw mais toog fee naan aaw ñetteel ak ñett ah, ah. ah gaaw a des ba tàccu leen